del màggal Touba édition 2023 police dafa tàmbali woon ab opération ñeenti fan ci weeru uba léegi sa mbir ma jàpp nañ si ay téeméeri téeméeri doomu aadama ci ay ñaawteefa police yi amul foofee ndax teg na loxo ci neebar gu bëri ci loolu jàpp nañu lu mat juróom-ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar ci ay nit ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak benn ñoom lañu jébbal yoon ñoo xam ni liñ leen di toppee mooy ñaar téeméer ci ñoom ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent lu jëm ci wàllum sàcc jël alalu jàmm fukki kilo ak ñeent drogue. ci lu ñeel wàllu kaaraange gi dem bekk dikk ay oto ak i ñi yóbbu leen fourrière si lu ñeel nag accident. juróom ñetti fukki ak matériel la maanaam ay oto yu gaa matériel rek la. ñeent fukk ak ñaar accident corporel ay nit yu ci am gaañu gaañu. ñetti nit ñoo xam ne dañ ci ñàkk seen bakkan. si lu soxal nag màggal Touba gi police nationale jëmmal fii si Touba. mi ngi engage ak juróom benn loolu boo koy seetlu par rapport ak li woon daaw na lu mat fukk ak ñaar ci loolu ñoo ngi ci yokk également un dispositif électronique la ak de surveillance pour gën a yombal nag wàllu circulation bi di dem bekk dikk bi Touba police teg na plan ngir ñi yor ndaamar ñi yor seen tànk ba si jafe-jafe jëm mbay dañuy desandi ak euh, ci janoom ak way taskatu xibaar yi moom nag daal dinay xam avancé yoo xam ne daal dinañ koy sàkk noonu euh, càmbake la mu ñu gën a yokk seen lëkkaloo ak euh, li nga xam ne moom mooy kaaraange pour Touba ak Mbacké ko dagg en treize secteurs juróom-ñeenti post de police avance nit ñi bu ñu amee jafe-jafe quelque part commissariat donc dañuy jël police jegeel leen ko moo tax ñu def ay poste de police ñu ngi nekk poste contrôle station MK bu Daaru Xudd route de Daaru Muxti gaar ba kër Sëriñ Abdoulaye yeneen ñaari sancu Daaru Salaam ak jàmm gën di le di ku ci am loo xam ne gis nga ko te dalul wala poste de police wala poste de police avancé bu la gën a jege pour def déclaration.